ñett te liggéey yi yëpp tàmbali woon depuis daaw foog naa dem euh, kër kàpp di fa gis bassin boo xam ne bu yaatu la bu tolloo foog naa ne juróom-ñetti hectare boo xam ne xare loolu foog naa ne du liggéeyu benn fan du liggéeyu ñetti weer tàmbali woon nañ ko depuis daaw ñu siy gërëm tamit sëñ bu baax te foog naa ne suuf moo ko teg ci loxo nguur pour ñu mën ko faa def ñaareel aussi foog gis nañ ko muy ci wàllu canalisation. foog naa ne sooy wër réew mi xeetu canalisation yu bareegul ndax soo xoolee dimension 2 mètres de 3 mètres maanaam doomu aadama soo ci taxawee sax dañ lay seet kon yaakaar naa ne lépp pour drainer ndox mi nag projet yëpp pare na waaye am nañ si yaakaar ne euh, suñ ko mettre en service dina wàññi lu ci bari mais en attendant nag muy pare foog naa ne ONAS war na jël ay matuwaayam engagé wu na pour def li tubaab bi tuddee ay mesures conservatoires. notamment ci surtout Ngiraneen ak Ngélémou ndax xam nañ ne bassin de rétention pour nga def ko ci ba mu fi waaye comme nañ defoon daaw fonaan naa dinañ ko def ren def ko benn système de pompage jëm ko dugal ko ci réseau bi mun na dem ba kër kaaw loolu foog naa suñ ko defee dina soulager quartier tool noonu leneen nag mooy surtout point wu mairie bi dañ ciy insisté waat ndax non seulement mën na la waaye day am conséquence si dem beeg digg maire Touba jàmbaar la ndax fu mu amee woon dina jël ay camion di pompe mu dem mais day jël ay fan yu bari te yaakaar naa ne euh, màggal gi génnagul ci nawet bi kon foog naa ñu régler problème bu bon fois pour toutes même si c'est une mesure conservatoire boo xam ne moo gën a efficace nañ ko def ndax électropompe jafewul teg ko fa def ay flexible yu bu ko station Shell ba foog naa ne mooy li gën le nag terrain boobu ñuy wax ça appartient en particulier mais nañ xool également des raisons sécuritaires est-ce que foofu en pleine ville def un bassin de rétention wala leneen est-ce que na ma ne wax ngeen ko peut-être station de pompage mën na ne mais en attendant ndax loolu mënugul mënugul pare fii ak màggal nañ fa def une électropompe jël ndox mi dugal ko ci réseau bi mu dem moo gën a efficace te gën naa ne moo gën a moyen coûteux loolu foog naa ne point la boo xam ne nañ ko saytu pour xool vraiment nañ ko mën a defee la la des nag mooy ci wàllu ndoxum naan. forage yaa ngi fii moom ñu ngi sant yàlla bu ngi dox ah am na yeneen yu bees yu ñu ko def muy juróom waaye nañ continuer dispositif bi defoon daaw mooy fexe bu population aussi fagaru maanaam root réservoir yi bien avant màggal mais nañ ko def jamono boo xam ne aussi dem beeg dikk bi day yomb ndax su yéexee ay fan dem beeg dikk bi day xaw a jafe biir Touba kon loolu également au niveau de l'OFOR dispositif boobu nañ ko def. bi ci doon mais mieux nag nañ aar également nag réservoir d'eau yooyu ndax seetlu nañ ko parfois dañ ci am ay xale yoo xam ne dañuy dem ci biir kon loolu également dañ ciy profité ñu wax également askan wi réservoir yooyu ne ci biir kër aussi nañ ko jéem a aar ba mu gën a xamal ni ni loolu ci wàllu maintenant dispositif sanitaire on a région médicale rek ci wàllu poste médico avancé ak jumtukaay yi nga xam moom la war a àndal muy ambulance tout le personnel qu'il faut l' entretien ñi ngi ci mais ñu demandé àddalu rek ñu gën koo accéléré ndax xam naa ne li des fii ak màggal euh, bëreetul wàllu kaaraange ça je pense comme j'ai l'habitude de le dire c' le cœur des métiers muy force de de sécurité te mu nekk un élément essentiel euh, parce que lépp loo xam ne ay doomu aadama ñoo fay daje rek on a ne état moo sasoo assurer la sécurité personnelle yi rawatina nag màggal gi nga xam ne seen une dimension internationale donc jumtuwaay mi ngi fi doomu aadama mi ngi fi li ci des rek mooy toujours di ko lëkkaloo ak le comité d'organisation du grand magal de Touba ndax am na aspect yoo xam ne fu ñu jaar également alu ci ñoom it am na yitte yoo xam ne war nañ ko pour accompagnement ñuy demande rek comité d'organisation bi jàppale leen si d'abord seen nekkin foog naa ne bu am jafe ak également seen dundin ndax foog naa ne effectif bu am solo moo fay moo fay ñëw yaakaar naa ne loolu moom am nañ si yaakaar bu nekk jafe-jafe bi Touba la rek mooy lii nga xam ne tënk nañ ko tey dinañ ko def ndax naa du yàgg ministre de l'Intérieur woo également réunion au niveau national mais incha allah rabi suivi bi nañ ko doon defee daaw mooy ba bu jot ñu jël benn benn secteur xool fan lañ ci tool mu bañ a yem rek ci ay kayit nañ dem sur le terrain. daaw defoon nañ ko moom la ñu tuddee woon les mercredis du grand magal de Touba mais incha allah rabi aussi cette année on compte le faire muy secteur yi nga xam ne moo am impact direct ci organisation magal bi muy ci wàllu tali muy ci wàllu ndox muy ci wàllu assainissement mun ne ci wàllu biir yow loolu foog naa ne dinañ ko ànd ak ñi nga war nañu ko war a àndal saytu ko teel a alerté ndax c'est ça aussi l'objectif nekkul rek dem xool mais du ñànk ñu gis foo xam ne ay rëq-rëq la ñu su dee au niveau régional au niveau central ñu alerter au moment qu'il faut autorités yi nga xam ne ñoo yore ñoo yore bi am nañ yaakaar ne suñ ko continuer suñ borom mun nañ ci defal euh, ndax ndax nag borom bés bi moom mun naa ne waajal na ba pare dañuy jéem jël rek dem cee teg loxo barkeelu ci loolu moom liggéey bi ci nekk boobu ci am te gëm nga boobu lañ ci am donc sant borom bu baax muy mais aussi mun may ñu kàttan gën ciy tegal loxo rek foo naa ne puus bu dem donc naa ne loxo boobu ñuy barkeeloo ñi ngi ñaan engagement yi nga xam ne moom fi ñëpp suñu borom may leen kàttan boo xam ne di ngeen mën a barkeel ci bés bi te lépp loo xam ne fas nañ ko ci rek suñu borom ak borom bës bi nangul ñu ko surtout nag def si jàpp ci bi te gis nañ bu baax si mun taxaa incha allah li nga xam ne liggéey na ko ci bi ñëpp teg nañ seen bët di ñaan rek suñu borom jàmm jooju law te sargal ci réew bi di nga daal rek beneen yow baax sëñ Bass di ko teg sa loxo ko njaboot yëpp ak membre comité d'organisation bi te incha allah lépp loo xam ne nan nañ ko def rek war naa ne dañ koy ànd di ko yóbbu am na si yoo xam ne nag ci wàllu kaaraange am na jotaay yoo xam ne dinañ ko ci toog di ko waajal nañ ci si waxtaan ki jëm ci wàllu drone yeeg ak laissez-passer lépp daal am nañ si beneen jotaay boo xam ne incha allah dinañ ko wootee nga xam ne boobu nag ñun ak takk der yi kese ñoo koy séq mais lépp rek jëm ci li nga xam ne mooy mooy waajal bés bi ah di jéggalu nag fois ci guddaayu ndaje bi waaye bës bi moo moo laaj te bëggoon nañ kenn ku nekk rek àddu ci képp koo xam ne aussi teew nga fi te jëloo kàddu jàpp leen ne liggéey bi moo ko laaj mais nekkul ne sa teewaay amu ci woon solo mais am nañ yeneen jotaay yoo xam ne muy ay réunion secteur ku nekk di nga ci mën a àddu di gën koo xóotal donc loolu euh, a